ñi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi ci kër Cheikh Mouhamadul Fadil ci kër Cheikhul Khadim bu mën ko def ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom ñu ngi yëkkati sunu kàddu muy kàddu yoo xam ne dañ koy tàmbalee ci ab nuyoo ak ziar ak ñaan jëmee ko ci a Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér moom itam ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën koo def waaye nag ñu di ko teg ci loxob Serigne Abul Baraka mi nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadulil Fadil di ko jaare ci jëwriñam Cheikh Mouhamadulil Bachir ak Cheikh eh, Mouhamadulil Mourtada mu jóge ci Cheikh Abdoul Fattah di teg kàddu yu nuyoo yi nag ak cant yi ak ñaan yi jëm ci mbooloo mi di ko ci teg ci loxob Serigne Abdoul Ahad moom Serigne Abdoul Karim mi nga xam ne mi ngi nekk ak noonu fii ci jataay bi muy kàddu yu nuyoo ak cant ak ñaan yu jóge ci Cheikh Abdoul Fattah waaye jëm ci mbooloom yépp waaye nag sabab si di sëriñ Fallilou Mbacké moomam mii nga xam ne moo woote bis bu am solo bii kon sëriñ bi ci ndigal ak ci turu Cheikh Abdoul ñu ngi lay wax waaw góor di la wax jërëjëf ci taxawaay bu rafet bi ak xalaat yu rafet yi nga xam ne danga koo ànd ak sa bokk yépp ba mën a taxawal bis bii muy bis boo xam ne li ci aju dafa bari lool lool te lu ci nekk mënta ñàkk di lu am solo muy bisu fàttaliku ak sant ak ñaan jëme ci a Cheikh Mouhamadul yi nga xam ne moom daa waroon bis bu set ñu di ko def dañ ko war a dëkke loolu moom des ko war a dëkke te di ko taxawal waaye di ko def bis boo xam ne bisu jokku mbokk la yokku mbokk li ci alxaaji Fadilu Njaay wax mëne su cee dara kon loolu jar na moom itam dëkke ko waaye di bis boo xam ne itam dafa jëmm ci ni mu amee ren ji ndax fàttaliku bokk li ci nekk ni mu yaatoo ak ni mu amee njariñ waaye lépp dafa feeñ ci jataay bi ba mu tàmbalee ba tey noonu lay doxe at mu ñëw rekk dañu naan bii moom moo raw lool bi nga xam ne moo ko jiitu ni nga koy def itam di ko tuddee njabootu ko Cheikh Mouhamadul Fadil kuñ ko tuddee rek dañ naan kii moom moom la ñu waroon a jiital waaye ni nga ko waxee ci ndigal ak doxin wu rafet bi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Fattah wax nga tàmbalee ko ci Cheikh Abdoul Karim nga xam ne moom mag ci njabootu sëriñ bi di ñëw di ñëw ba yàlla dogal tey jii mu yegsi ci sëriñ Abdoul Qadir mooy sëriñ Jili buñ nee sëriñ Jili nag mën nañoo wax ne kon ñaar nga ren sëriñ jiili jagleel ko ko waaye sëriñ jiili ak sëriñ Mamor ñaari tur lañ waaye jenn jëmm lañ kon ñoom ñaar ñoo bokk bis mu doon lu am solo loo xam ne ku ci doon wax mënoo jeexal waaye doo xam fooy tàmbalee ndax sëriñ jiili buñ ko tuddee kenn ku ne rek mën nga ne saa kenn ku ne mën nga ne sëriñ jiili saa moom ca ca ca baax ga ca laabir ga ca yaatu ga waaye ci ni mu doon dundalee yaakaar yi taalibe yi ci Seexul Xadiim radiyallaahu anhu nit danaa nekk fu sori am yitteem ñu ko jaaxal lool waaye yitteem yëpp rek moom mooy na jot Cheikh Abdoul Khadir ba mu dégg noppam day jàpp ne bu ko sëñ jiri déggee rek aju ja faju te noonu la ko suñu borom doon defee te yaakaar dafa am solo ci jaam yaakaar dafa am solo ci doomu aadama sëriñ jiri dafa doon dundal yaakaar yi nit ñi di xemmeem loo nit ñi Cheikhul Khadim di xemmeem loo nit ñi Cheikh Mahamadul Fadil yàlla na ko yàlla fayal kon boo ko jagleelee bis bi kon njabootu sëriñ Fàllu gépp nga ko defal njabootu sëriñ Touba gépp nga ko defal waaye jullit yëpp nga ko defal am na ko wax ne sëriñ ji li ñëpp la jaboote woon waaye ñi ko daan wax di ko di ko di ko woo di ko wax seen yaakaar sunu borom di ko faj yëmut tax sax ci murid yi waaye mën nañ ne jullit yi ba ñu du ci jullit dañ ko daan ñaan lool te lu mu ñoo sa ñaan sunu borom def ko kon boo ko fàttali ko jagleel ko bis bi def nga lu rëy waaye ni ma ko waxee mook sëñ Mamoor benn lañ sëriñ Mamor ku ne xam na ne yëg nañ ne sëriñ Mamor newu fi li ma ko waxee woon bi ñu ko jaglelee bis bi moom itam ca yitte ja ca ca ca macha allah xam-xam bu bari ba waaye xel mu rafet ma waaye cawartaange ga du tàng xam du soxla lu ma sa xew ci yoonu murit bu taxawee rek xol yëpp set te ku ma sa am sa bis itam danga ne siiwe seen sëñ Mamor muy ñëw ndax xam nga ne bu ñëwee itam taxawaay ba dana mat sëkk waaye yàlla boolewuñ ko sëriñ ji li ba ñëpp xam leen kon boo defee bis bi tey tudde ko tudde leen ko ñoom ñaar laay wax jagleel leen ko ñoom ñaar kon ñëpp nga ko defee kon ñu ngi lay sant ci turu Cheikh Abdou Fatah di ko rafet lu lool xamee nañ ci ne itam mbirum sëriñ bi amul tànk gannaaw ndax at mu jot bu ñëwee dañ naan bis bi moom bii moo raw lool ba nga xam ne moo ko jiitoon kon yàlla yàgg yàlla yàgg ni nga ci dajale bokk itam dafa am solo ndax bi nga koy lim léegi mën nañ ne yoonu murid yëpp daje nañ yoonu murid wëpp ñëw nañ te loolu moo am solo rawatina nag ci jamono jii ñu toll bokk ci li nga xam ne Cheikhuna Xadim radiallahu anhu doon na ko ñaan yaa rabbi jaalil muridi muridina maan fi fi xesnika alxasini wa chamlaj maa ba mu ñu ñaanalee ba noppi tam sëriñ bi dafa ñaanoon sunu borom may ñu ñu dajaloo booloo nekk benn te lii bokk na ci jataay yi nga xam ne luy sooxat loolu la lu koy jëmmal la bu koy dëgëral la kon jataay bu am solo la yàlla nañ ko yàgg teewe di sant nag ci turu Cheikh Abdoul Fatah mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bis bi tàmbalee ci ñi doon def njàng mi waxtaan yi ak ñi fi jël kàddu kàddu yi fi jëb macha allah dafa matale ba ba nga xam ne mënisatu ceet ak dara bi sëñ euh, sëñ Mourtada noppee dama ne ko rek dañ naan kon alhamdulilahi rabbil alamin la daan di ñaan waaye sëriñ Abo kàddu yi mu fi yëkkati tubaarkàlla matale na sëkk sëñ Alaaji Njaay mi njëkk a waxtaan waxtaan ci ak bokk nga xam ne yëfi sunu boroom la ak ni ko sunu borom fonke waaye Serigne Cheikhouna Joxaane lii mu ñu dolli ndàmpatalaat ko mbooloo mi ci Serigne Jili tam doon loo xam ne ñëpp xam nañ ndax bi mu fi jógee yàggul lool waaye ni ma ko waxee ci njëlbeen kenn ku ne jaara nga ak moom foo xam ne wala nga seq ak moom loo xam ne da bu ñu nee Serigne Jili rek nga ne Serigne Jili sama moom waaye moto Murtada ñu lay sant yow itam ci kàddu yu matale yi Serigne Fallilou yow it macha allah tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin kon daal sant rek la ñuy def te sunu borom bàyyi fi Cheikh Abdoul Fatah bàyyi fi kilifaam Cheikh Abdoul Baraka Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikh Mouhamadul Murtada ak njabootuk Serigne Fallou bi ndax noonu ñi di seeni taalibe day topp ci ñoom suñu xel dal na ci ñoom sunu xel dal na ndax ñu bari ci noonu xamuñu Serigne Fallou waaye ñoom dañuy xoole Serigne Fallou tàmbalee Cheikh Mouhamadul Moustapha Cheikh Mouhamadul Amine ba yegg si ci ñi damay nettali man sama bopp ma damaa jege Serigne Abdoul Fatah ba xëy na du mën a wax ci moom waaye bàyyi Cheikh lu mas a wax ne dafa am bis booba mu nekk ak ay tuut tànk ci mbedd mi ñu ñu ñu ñu nekk foofa rek duma jaar ci lañ doon def nee na benn oto romb leen booba oto bariwut lool dem ba weesu ba romb leen dellu siwaat gannaaw arrière ñëw taxaw daañu ne dañ ma wol kee ñu woo ko mu ñëw nee na Cheikh Abdoul Fatah yëkkati ci jibaam xaalis jox ko mu dem mu naan waaye kii kum doon ne ñoo naan ko kee mooy Cheikh Abdoul Fatah moom Serigne Fall te noonu lay xoole ñëpp ci Serigne Fall ci noonu am na ci bu may nettali moom nga xam ne waxtu wu ne dama koy wax ndax dafa doon lu lu am solo boobu bi ñu jàng alxuraan buñ masaan màggal si Touba boobu passion moo am ci dëkk bi te fiir fiiriir boobu yombul man saa bu ma masaan xëy ñëw di si siyaari si Abdou Fatah ñëw nga xam ne ñoom laa bokkal daara ñu màggal si dama naan leen kaay leen ñu dem buñ yegsee bu ma ko nuyoo rek mu daal di sama doomi sëriñ daal di làmb jubé yi jox ma buñ génnee fu ñu jot rek ñi ma àndal ñëpp ñu xew li ci daal di dem te bis bu set ma ñëw bu ma ñëwee mu defaat noonu loolu duma ko fàtte mukk te loolu ñun ñëpp la ko doon defal boobu Serigne fàllu rek lay xool ci noonu kon Cheikh Abdou Fatah mënuñu ko fay day ñaan sunu borom bàyyi ko fi te may ko wér te noonu mu taxawee nag ci kër Serigne Fallou la mel ci yoonu murid wépp noom la mel ci bindeef yëpp li Serigne Lamine seede léegi loolu kat yombul loolu jëf mënu koo kawe waaye dimbale nit ak yéene lu baax ñi nga bokkal mëne su koo weesu kon loolu sëriñ bi Lamin yow itam def nga lu baax ndax loolu kat lu mat a wax la ba nit ñi dégg ko jëf ju noonu nga di ko jëf te daanaka ku ko waxut ku ko kan ko defal bu ko waxut kenn du ko yëg te wóor na mu ne def na yeneen yu ëpp yooyu yoo xam ne ñam ko defal rek ñoo ko wax mu dégg ko kon yàlla na ko yàlla fayal yàlla yàlla may ko wér bàyyi ko fi moo ki magam ak i ak i rakkam ak bokki taalibe yi te lii yàgg lool sëñ Fallou na nga yokk laxasaayu te xam ne lii ngay def kat lu am solo la na fexe ba nii ñu ko waxee ren at mu jot rek yàlla na demee noonu te ñu fekke ko at yu bari loolu te ànd ak jàmm képp ku fi indi yitte yàlla na ko sunu borom faj képp ku fi ah, indi tawat yàlla na ko sunu borom saafara dañ fekk ko at yu bari lool te sunu borom fayal nu Cheikhuna Mahamadul Fadil yàlla sunu borom fayal nu Cheikh Mahamadul Fadil wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wajjahtu wajhi liman takrim mohobana fi shahri mawlidi البحر ربانا وجهت وجهي لمن تقريب